kon nag mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ci programme bi waxtu bi nga xam ne ci lañ war a daje ak euh, professeur euh, oustaz Babacar Niang mi nga xam ne mooy adjoint porte parole bi mu ñëwal ñu ci kàddoom kàddu gi nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moom la tuddee face à la crise de Covid 19 ak quelle attitude moom la ci ab jullit am loolu nag ca jamono yonent ba mbas mu daan am nuñ ko daan doxalee. kon duñ man lu may ànd ak ki nga xam ne kii mooy professeur oustaz Babacar Niang mu demal ñu ci loolu bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alfatih alxaatimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bésu gàmmu gi gàmmu gi nga xam ne euh, xadra bi xam na ko ndax Mawlaaya Cheikh al Islam moo ko jàppoon moo ko sosoon ñi koy amal fii ci Dakar xam nga na mi ngi daan gàmmu fii ci Medinatu Kaolack Medina baay di fi gàmmoo di gàmmuwaatee leew na mbaa coopérative ba jamono laaj gàmmu ak gàmmuwaat yëpp ñi di ko defee fii ci Medina baay sang boobu di cheikh al nag nga xam ne moo doon def gàmmu googu taalib yi yépp di ko fekk si moo amal gàmm gi nga xam ne moom lañuy def ci dakaar ñu décalé ko nag ndax xam nga ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam sooy natt juddoom tey wax ci taarix foog nga wax hijir muy alhijriya bi nga xam ne gannaaw gàddaayam la jullit ñi di ci def seen taarix waaye fekkoon na fi itam beneen at boo xam ne ñi ngi koy jëfandikoo muy at bi ñuy wax grégorien mu gën koo xam ci suñu làkki ni wolof ñu koy wax atum tubaab mi wala weeru tubaab ci atum hijriya nag ku nekk xam na ne gàmm googu weesu na waaye mu ngi tolloon ak avril weer wi nga xam ne ci lañ nekk ñu bàyyi digaloon mbokk taalibe yi ci ñuy def gàmmu gi heure bu datu juddu yonent bi jotee rekk ñu def ko ñoom itim dakaar ci ndigali Mawlaaya Cheikh al Islam Hadj Ibrahim jamono nag dox ba mayewul tey soppe yi daje nattu la ci nattu yi mayewut mbooloo daje nattu la ci nattu yi ndax xam ngeen ne gàmmu gi ñi ngi ko doon def ni ko bàyyi waxee woon ne noonu lañu ñu war a gàmmoo Seydi Ahmad Tijaani waxoon ko bàyyi feddali ko jàngale ko waxoon ko doomam xalifaam ba Haji Abdallah Ibrahim Niass ne ko doom gàmmu du ludul xisasun tataxallaluha al amdaax di bàkk yónnent bi di wax ay jaar-jaaram di wax ay taarixam jullit ñi mën cee jànge waaye léeg-léeg ñu dugal ci ay way loolu rekk mu ne ko mooy gam ñi ko daan def ci teewaayam gannaawam xulafaam yëpp wéyal sunna bu rafet boobu di ko def ren nag am lu ci bees li ci bees mooy ne wax naa ko ci commencement bi mënatuñoo daje ndax noon bi ñuy wax corona Covid 19 bi nga xam ne àddina yëpp la daj te amul frontière xam nga am na ay épidemi yu amoon dañ naan ma nga asi wala ma nga Afrique wala ma nga dëkk sàngam waaye natt bu daj àddina yëpp. néew na lu muy am te am na ci noon bi nga xam ne moom lañuy wax corona doon na lu ñuy wax pandémie daj àddina kap kenn mënu ci mucc lu dut ñu yàlla sauvé ñu jàpp itim ci tegtal yi nga xam ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu googu ñoo ko joxe ne nañ ci jàpp ah yàllaay musale naam dëgg la waaye yàlla yàlla bay sab tool loolu la olof yi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waaje ñëwee am gëléemam ne ko damay wàkkeelu bàyyi ko yàlla la ko yonent bi waxoon mooy ne ko aqilha wa tawakkal jatan ko tënkal ba mu baax nga bàyyi yàlla waaye soo ko jëloon nag sa giléem bàyyi ko ci digg till ya ne bàyyi naa ko yàlla jàppoo ci sabab yi tax mu mucc moo tax muccal la dafay dal di jafe loolu tax rek ba suñuy kilifa bi ñu gisee ne euh, daje bokkut ci jàpp ci asbaab bi mucc ci feebar bi ñu ne euh, mbaax yi ñu daan def yëpp nañu toog ci kër yi defee ko fa. xam nga boo doon def ak mbaax ba nattu dab la yàlla daf lay jox yoolu lu baax loolu nga xam ne moom nga daan def bi nga ko manee bi nga ko manut contour bi la doon enregistreel mbaax googu dafay continuer di la enregistreel mbaax googu kon même bu ñu gàmmoo ci biir kër yi ak suñuy euh, jaamu yàlla ak suñuy salaatu ala nabi gannaaw biñ koy man ñu ngi ko daan defee ca xadara booba nga xam ne xaadimatul quran moo ko fàkk ngir yàlla Cheikha Mariam ñi ko doon defee ca barab boobu tey mënuñoo daje ca barab boobu yàlla ngi jox yoolu ñu toog ca barab boobu di eh, dundal juddub yónnentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nattu nag ak noon du lu bees ci àddina nattu ak noon bu ñu teree jaamu yàlla ci place publique du lu bees it ci àddina yàgg na am waaye bu amee rek kilifa yi jël responsabilité yi war a jël di yomb ci kilifa gi di yomb itam ci njaboot gi ndax kilifa gi dafay gis loo xam ne tu njaboot gi yëpp a ko mën a gis te moom su ko gisee foog mu jël responsabilité am waaye njaboot gi itam léeg-léeg li kilifa gi jël ci ay responsabilité moom kilifa gi njaboot gi du ñu am élément ak argument yi leen may seen xel dégg ko bu ko defee pour ñu nangu itam bés seen xol rek moo fay dal di sës ah alhamdulilah nag bi nga xamee ne jamono bi ñu toll ñun bu ñu toogee euh, jëfandikoo suñuy xalaatu kilifa ne dajoo nañ moytu dajaloo bi am nañ ay jumtukaay yoo xam ne mën nañ faa jaaree jokkoo ak àddina yëpp ci biir village planétaire boobu nga xam ne euh, damay wax ne ki ko njëkk a théorisé mooy Mawlaaya Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass ca 1960 ca Ghana waaye du ñu yegseegum foofa foofa danaa ci dellusiwaat incha allah bu ma ñëwee bay wax eh, yenn ci solution yi nga xam ne jàpp nañ ne baax na ci nattu bu mel ni corona su amee li may wax rek léegi nii mooy ne nattu bu tere jullit ñi dem ci place publique du lu bees. xam nga dal na yónent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ko waaye comme ci bésu gàmmu lañ nekk xisse euh, yi ñu nettali yëpp ñu déggoon la déggati ko waaye euh, répétition ci pédagogique la bokk euh, bon ci njàngale jàng ak jàngale di baamu luñ xamoon ci la bokk ndax heure boo ko baamoo rek kiy déglu mën na cee jëlee loo xam ne mën naa am yow mi ko waxoon sax xamoo ko ci moo tax ba liñ koy xam-xam liñ nekk ci bési gàmmu te gàmmukat bi dana ci yegg si eh, itim du te ñu baamuwaat ko mooy ne yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam xaramul makki bale nga xam ne fa la kaaba nga nekk maamam Ibrahim sampoon ko wala beesaloon ko foofa la zamzam nekk foofu la maqaamu Ibrahim ba nekk yónnent bi sallallahu alayhi wa toog na ñetti at yoo xam ne mi ngi ci biir Makka te tegu ko bët. Ah, kay loolu mooy muqaataa bi nga xam ne amoon na ko mooy embargo bi nga xam ne defoon nañ ko ko xam ngeen ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa woote ne nañu jaamu benn yàlla ci la suñ njëriñ nekk yéefari Màkka ne ko am nañ ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk benn yàlla arrangé wuñu mu leen di jox ay argument alxuraan di wàcc di ko dëgëral gaa ñi ne ko li ngay wax mu munuñ cee ànd ndax am na région yu bëri seeni maam ak seeni i baay ñoo ci nekkoon te diinaay baay Mawlaay Cheikh al Islam nee na yàlla na dëgër yàlla nay jàmm yàlla na baax waaye su bonee niiw na bu ci doom muccee ñu topp seen i diinaay baay ak itim nag eh, ñiy jàngat histoire nee nañ amoon nay intérêt itim yu ñu amoon yoo xam ne commercial la wala économique la ndax ñi ngi amoon ay ay njaay ñi ngi amoon ay bidaaki xërëm yoo xam ne dafa am lu mu leen daan indil loolu mu leen daan indil nag intérêt yooyu gaa ñi gis ne jaamu benn yàlla daane xërëm yi dootu leen indil loola yooyu yëpp itam rek danga koy delloo rek ñu ne kufru la maanaam ak yéefar la gu muur seeni xol ba mënuñoo dégg dëgg waaye intérêt moom suñu gëmoon ne benn yàlla boobu moo leen mooy joxe wërsëg duñ ko teg rek ci ay xërëm yoo xam ne ñoo ko sampoon. Euh, yonent bi continuer di woote dañu dem ba ci kanam ñu samp ko benn embargo embargo bi ñetti at la diire li ñu waxoon mooy duñ ko jaay duñ jaay ñi ànd ak moom maanaam buñ indee seen xaalis ñëw ci bitig bi di jënd li ñuy njëkk a lijjanti mooy ndax kii julli laam déet buñ ne julli la duñ ko jaay marchandise duñ leen may jabar. ku ci toll ci war a sëy kenn du la takk bu fekkee jigéen la bu dee góor la kenn du la may jabar waaye yemut foofu kenn du duñ takk ci ñoom ñoom it duñ takki fenn loolu ci embargo bi la bokkoon ñi def leen ko ñetti at yoo xam ne ñi ngi tëj ci benn barab ba historien yi nga xam ne ñoo koy nettali sax dañuy wax ne da ngay romb ci fi ñu leen embargo dégg xale yaa ngay jooy ak jigéen ñi xale yi toll ci nàmp ndax ñetti at am na ci ñu ci juddu woon war a dem sax bay far bay fer am na ñoo xam ne ñi ngi nekkoon ci ay ëmb ñu ngi leen ëmb ñu doon ay euh, euh, nekk ci seen biir yaay mujj nañ juddu ci diggante bi ñu ne da fay romb dégg seen jooy ñuy xiif bay lekk garab yi nga xam ne ñoo sampe woon ci seen biir yi ëtt teewul yéefari Makka dóor leen embargo bi kon bu ñuy julli ci biir kër yi lañ doon jullee noona leen ko tegoon corona itim noonu la boo xam ne teg nañu ci kër yi yàlla bu mu yàgg waaye suñ lay nettali bi gën a métti bi ñuy foog ne di yegg foofa te yàlla bu mu fa yegg mukk yàlla jeex ci nu mu gën a gaawee yàlla jeex ci fan yu néew yàlla bu mu yegg sax ay fan yàlla mën na lool euh, yàlla nañu ko defal waaye buñ la nettalee ne yónnintu bi embargo nañ ko ñetti at yoo xam ne ci benn barab lañ nekk yemuñ foofu xam nga euh, li ñu teg ci barab yëpp sax ñu ngi jëflante ci suñuy biir foofu nag dañ ne boo amee sa xaalis di jënd duñu la jaay soo amee say bagage ni xaaral ma jaay ko ndax ma am xaalis bu ma jëndee sama marchandise la ngay jaay kenn du ko jënd dañ koy bàyyi ba mu lamb loolu lañ def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir embargo boobu ñu toog benn barab ba yonent bi toogee muñ ko ci xista bu gudd gàmmukat gi dana ci yegg yàlla mujj na ko teggil nattu booba dañu am kilifa kilifa gi moo leen di wax nu ñuy def ñu lang ànd ak moom ci lam leen digal yàlla mujj ko teggi ba nga xam ne mujj nañ génn ci embargo boobu ñu leen defoon ci xista bu gudd bëgguñu ci taxaw ndax gàmmukat bi moo moom loolu loolu nag pacte biñ bindoon pour embargo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ci karama moom la Mawlaay Cheikh al Islam di junj ci cawayam moo ne wa qad zaxrafa al aqwaamu makran bi nadwatin wa xattu kitaaban qasda dafci diyaa'i wa jaa'u bi badrin xayluhum wa rijaaluhum wa baa'u bi xizyin zaahirin wa wabaa'i وهل منع ماحد طوفا ببيته بمكة يوم الفتح وقت دحائي وهل منع نشر ديانة دائما بكل بلاد الله طول بقائي radiallahu anhu moolaay cheikh al islam ba muy kañ yonent bi comme ne nañ gàmmu mu ne qisasun tataxallaluha al amdaax lii lañ ko daan wayal waaye fekk na ma ngi cay bàkk yonent bi mu ne ko ba ñu bindee seen pacte boobu ba teg ko ngir fay leeru yàlla gi ci nattu yi ñu tegoon yonent bi la sallallahu alayhi bañ ko songee badra ñëw ak seeni gëléem géléem ak seen ngawar ak seeni fas ak seeni i mu ne fa mujj baaxut mukk ca ñoom ndax ne génn nañ ci ànd ak toroxtaane goo xam ne bu wér la bu nit mën a teg bët la waaye jugee nañ fi sax ay mbas dal leen ndax kat xam nga am na jamono itam bi mu nekkee ci métit boobu dafa mujj moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dem madinatu munawara ci ñaari gàddaay yi nga xam ne xam ngeen ko gàddaay gu njëkk ngi ñenn ci saxaaba yi ñoo demoon ñu ngi ñëwoon Afrique ñu ngi ñëwoon Habasha ci jamono boo xam ne jaziratul arabiya maanaam péninsule arabe ba nga xam ne réew yi gën a jege makk boobu xamuñ na sax lislaam yonent bi wootee na ko lislaam ñëw na fekk na booba bi euh, jullit ñi xatee ci biir Makka daw laqatu fii ci Xabasha jege si ñi ci suñu Afrique gii fi la ñëwoon ñu laq leen fi bi ñu demee ba dégg ne ah mbir ma am na changement ñu del si ndeke keroog la waalo ay nattu yaa ngi continuer di dem ci la yonent bi def gàddaayu ñaareel gi nga xam ne mooy gàddaayu dem Madinatu Munawwara waaye ma mun a Munawwara boobu itim noonu yi tooguñ fekk nañ ko fa xam nga Makka lañ ko embargo muy ñetti at bi mu demee a Munawwara itam dafa toog yàlla wan ko ne ko ah bés a ngi ñëw euh, danga dellu si Makka umra ji mu génn nettali géwéntu gi bi mu ko nettalee ànd ak gaa ñu dem umra ji bi ñëwee ba jub si Makka ma Makka dañoo yebal ko ko gàttandu si ne ko amuloo droit ñëw ci màkk du yéen di ngeen a gàddaayoon rek dem acca toog leen rek fii kay moom jeexal ngeen fi mu dugg ci négociation bu jafe bu xam ne dinaa ci ñëw incha allah waaye li ma bugg a wax rek mooy ne ba mu nekkee ca nattu ba itim ñi aayee ko xam nga aayee umra euh, noon def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi mu ñëw ba ju màkk dafa mujjut takkaat ay bagage am dellu madinatu war dinaa ci delsi ndax manta umra at moomu at ma ca topp ci la doora a umra umra moom la ñuy tuddee umratul qada umra bi nga xam ne dafa mel ni dafa fay at ma ko weesoon mu dellu Madinatu Munawwara waaye ba ndimbal li ko yàlla ñëwee gannaaw nattu ba la Cheikh Ibrahim di wax ne wa hal manau maaxi tawfan bi baytihi bi makkata yowma alfatxi waqta duxaa'i ayoon nañ ko de ne ko doo fi umra mu dellu mu ne waaye nag ah fàttaliku leen nag ba mu delsee ci bisu fatu màkkata ndax booba mën nañ koo aye sañuñ koo aye ñemewuñ koo aye ñi ngi ne woon ngéej mu ñëw ci jàmm bàyyi leen ci jàmm ndax xam nañ ne bu fay woon rek bakkan du fa des karo ndax doole ji waaye fayu fayu taxu ko jóg waaye fayu taxu ko jóg natt boobu jàll na lislaam waxuñu àgg na xabasha waaye romb na xabasha daj àddina yëpp moo tax Cheikh Ibrahim ne wahal manau nashra diyanati daiman bi kulli bilaadillahi tuula baqaa'i ndax mën nañoo tere diine yàlla leeru yàlla gi nga xam ne mooy diina yàlla ji di lislaam ndax mën nañ ko tere mu daj àddina kapp ba foo dem ci àddina fekk fa lislaam mënuñ ci dal ku neexoon sax nga yokk ca la ca bàyyi yokkoon ci benn ci leetaram yi foo fekk lislaam itam fekk fa tijaan yi kenn mënu ci dara su neexoon nga yokk ci itam lam ca yokkoon ci benn leetaram mooy ne foo fekk tijaan yi itam fekk fa faydaam bi lu ci nit man waaye ay natt yu mag nag jiitu na ko ndax danay am nattu danay am yàlla ah, def ca roon natt ba ay may ay xéwal waaye nag attanuñu nattu yi euh, euh, magum tijaan ma waxoon na ko dana wax bayti ba fam ko wax incha allah bu ñu ci yegsee danay indi nattu def may ci suufam danay indi xubaar tax taxtahu anwaar indi ab pënd fekk ci ron pënd bi ay leera nga ci suuf waaye daal euh, nattu yi tar na attanuñ ko yàlla mën ngaa joxe xéewal te doo joxe nattu yàlla nga ñu jox xéewal yi rek ñu daal di ci yem waaye nattu nag moo àddina itim moo am moo ànd eh, ngir sabab yu bari bokk na ci ngir nattu ñi nattu suñuy gëm bokk na ci ngir nattu ñi indi xéewal bokk na ci ngir nattu ñi mooy yàlla te eh, ay am na tooñ yoo xam ne bu amee danay ànd ak nattu te ñaare itim ay du yem ci bopp boroom alxuraan itim wax na lu niru loola ne moytu leen fitna ndax fitna du ci du yem ci ñi ko sooke woon lii na nga xam ne mooy épidémie boo xam ne dañ koy wàlle fekk siwul yónent bi Madinatu Munawara ndax Madinatu wara moom yàllaa ko aar ci leeru yónent bi sallallahu alayhi wa sallam xabru yónent bi yàllaa ko aar gis nañ sax ilimaan bu nekk ca Makka muy jéema a désinfecté xabru yónnent bi euh, benn aalim bu nekk Kuwait tontu ko tontu bu tar waaye yeeyu na ñu tontu ko tontu bu tar di euh, setal barab yi nga xam ne moom lañuy ñuy jullee di setal barab yi nga xam ne fa lañ moom lañ fonk lu jaadu la lu ñu war di def la toujours waaye di ko def nag ne yaa ngi désinfecté euh, xam nañ message bi nekk ci ron loola moo tax ñi koy tontu itim tontu ko. message bi nekk ci ron loolu ndax euh, fi fi ñu teg yonent bi comme am na ci ñoom wax dëgg yàlla du ñëpp am na ci ñoom ñoo xam ne léeg-léeg ñu ne dafa ëpp moo tax ba ñu bugg a wane ne kenn la ci nit ñi rek fam mu tëdd itam benn la ci barab yi nit ñi tëdd waaye du benn nag ndax këram ga ak min baram la min baram ba raw la min riyaadil min riyaadil barab la ci aljanna te aljanna mbas yeggu fa ak yeneen xadis yoo xam ne sax firndeel na loolu ci temps Omar mbas am na bu ñuy wax taaun mi nga amoon Omar nga ca Madinatu Munawara Madinatu Munawara xiif am na fa Madinatu Munawara xiif amoon na fa waaye mbas ma yeggu fa mbas mi muy épidémie bi ma nga nekkoon Cham mi ngi amoon ci atam fukki at ak juróom-ñaar ci hijriya ci gàddaay yonent bi ci même période boobu nag xiif moo amoon Medinatu Munawara mbas ma am saam ci Cham ca fin wu euh, euh, l'an 17 ci hijriya ci la amoon ca Cham xiif ba ma nga ma nga xiif ba mi ngi mbas ma ma nga amoon sa Cham waaye xiif ba yegsi woon na Medinatu Munawara xam nga dañuy wax ne pandémie su amee ñaari choc la choc bu njëkk bi mooy natt bi corona la walla Ebola la wala nu mu tudd choc ñaareel bi ñu ne économique lay doon toujours ndax xam nga ñi feebaroon liggéeyatuñ ñi faatu am ñu ñu doon dundal digg bi ñu toog sax confiné nit ñi ñu toog benn barab yooyu yëpp itam ay nattu la yoo xam ne dafay ànd ak mbas mi. moo tax ba dafay répercuté wu ci ci économique nit ñi dafay répercuté wu itam ci seen doole ci seen alal ak ci seen man-man moo tax ba ne naa leen mbas mi yegg si woon Madinatu Munawara yegg si wutoon waaye majaa bi muy xiif ba egg si woon na egg si woon na Madinatu Munawara ndax ñaari feeñuwaay yooyu nga xam ne mooy am ci mbas toujours mooy ne mbas mi toujours dafay ànd ak ay jafe-jafe yoo xam ne dafay laal poche yooyu mooy nattu yi nga xam ne am na fekk Seydina Omar euh, mi ngi nekkoon ci xilaafa gi ci boobu jamono ñëpp nekk ci jamono jafe-jafe xiif am na boo xam ne ñu ngi ko tuddee woon amul ramada mu am fukki weer la durée fukki weer la jiite kon tuuti kon mu mat at Omar bind Abil Moussa al Ashari ca Basra ne ko indil ma njëgg maanaam indil ma ay dund yu bëri ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo ñàkk ndax ne naa toujours mbas dafay ànd ak nit ñi am ay problème économique Moussa al Ashari yebal ay conteneur ñu ñëw indi dund nattu boobu nga xam ne moo amoon ne naa leen euh, mbas ma yeegul Madinatu Munawara waaye impact économique bi mu def laal na Madinatu Munawara ndax xalifa baa nga xoon foofa muy Omar ibnul Xattab xiif bu mag am diire neuf mois taw amul boole ci nawet ba yàqu ne suuf si lëndëm mu boole ko ngelaw ak pënd ak tàngoor suuf si lëndëm ba mel ni dóom taal moo tax ñu tuddee ko amu ramada atum pënd ba wala dóom taal bi suuf si nam meloon a tax ramad yi kane lawnuhu ramad yi dafa meloon ni couleuru euh, dóom taal moo tax ñu tuddee ko at ma sax faf Omar yónnee Abul muusa al Ashari ca Basra ñoom euh, mbas mi yegsiwul ci ñoom ñu ngi am dara ñu yónnee ay conteneur ñu ñëw Abu Ubaydat ibnu Jaraax jugee Cham moom itam indi ay conteneur indi yu bëree bëree bëri ci ay xeetu lekk ñu koy séddale Madinatu Munawara jullit ñi nga xam ne mbas moom dal na leen wala ñi nga xam ne xiif bi dal na leen waaye damay wax ni taawun bu ñuy wax beneen épidémie itam amaat na xiif ba moo doon amul ramada waaye euh, mbas mi moo tudoon amawaas taawun amawaas ñu ne ama Amawaas dëkk la bu nekk ci Cham te fa xeme xewe woon fala doore dooree woon mi ngi mel ni rek euh, mbas mi am na jamono sax am ñu ko bëgg a tuddee mbasum Chine ah, ba boroom xam-xam yi ne déet buñ ko askan ci dëkk di leen stigmatiser maanaam di leen ber déedéet nañ ko tuddee at mi nga xam ne corona muy dafa amee jëmm Euh, teej bi ñuy tegal buur moo fa indi koroon gi ñu ne ci at mi mu xewoon mooy mille deux mille dix neuf ñuy dugal ci dix bi kon ñu ne mbas la muy niru tegu buur xew ci atum deux mille dix ñu gàttal ko ci Covid dix neuf waaye ci am na barab bu mu tàmbalee yi nag waaye dañuy bañ tuddee ko barab ba. ndax ñi nit ñi doxee ci di moytu mbooleem ku dëkk foofa ñu tuddee ko tur yi nga xam ne moom ngeen xam amawaas itam dëkk la woon ñu tuddee ko mbas gis ngeen ba tey gannaaw junne ak ñeenti téeméer yu teg teewul ba léegi ñu ngi naan taawuna amawaas moo tax borom xam-xam yi jamono ci wàllu communication bañ ñu tuddee ko euh, corona bi bañ ñu tuddee woon ko chinois yi euh, dëkk bu nekk ci Chine. conteneur yi biñ ñëwee Abdourahman ibnu Awf Omar ibnu Khattab conteneur yi ñëw ñu yóbbu ko nag Cham Omar sax xalaatoon na dem Abdourahman ibnu Awf moo ne ko ah man de dégg naa ci yónnent bi mu ne bu ngeen déggee mbas ci dëkk bu leen fa dem bu ngeen déggee am mbas ci dëkk bu leen fa dem su ngeen nekkee ci dëkk mu dal leen fa bu leen fa génn kooku moo tere Omar ne ko bul dem ci mbas moomu Omar daal di toog ñu yónnee ndimbal yi ah, Omar métti lu lool nag ñàkk dem bi ne nañ jooy na ci sax jooy yu mbas ma continué na. ba lu mat vingt cinq mille jullit ay des personnes yoo xam ne ay jullit lañ am ñu ne trente mille personnes la yóbbu bokk na ci kibaaru saxaaba yi nga xam ne fekk na leen fa. Abu Ubayda mii ma du ci la bokk ci ñi fa des Muaz ibnu Jabal al Ansaari ci la des doomam jëñ ki ñuy wax Abdurahman ibnu Muaz ibnu Jabal al Ansaari ci la des Yazid ibnu Abi Sufyaan ci la des. Shurahbil ibnu Xasana ca la des Fadl ibnu bin Abbas doomi Abdou Moutalib men na mi ngeen xam ci la des Abu Jëndal ca la des ibnu Suhel Abu Ubaydata ca la des Amiru Saqafi ñun ñëpp ci trente mille personnes yi dee ci lañ leen limaale moo tax ba bu mbas amee itim nag euh, dégg naa kuy waxtaan te waxtaanu diine la la doon def sax àgg war nañoo xoolaat suñu bopp ndax mbas du des jullit maa ngi koy fàttali du daal jullit ah, maa ngi koy fàttali ne mbas danay dal ku tooñ yàlla danay dal ku tooñ yàlla laafaale ci koo xam ne ay du yem ci bopp borom mbas danay dal koo xam ne ab nit ku yiw la topp boromam yàlla teg ko nattu bi mu dal ci kawam ndax ñii ma leen tudd yëpp ay saxaaba lañ yoo xam ne kenn koo ci toogoon rek ne tamay waxtaan ci moom mu jël émission bi wala mu jël gàmmu gi ñii ñëpp ay saxaaba yu yonent lañ yoo xam ne joxe nañ seen alal joxe nañ seen dund joxe nañ seen njaboot ngir lislaam te ñi ngi des ci taawoon boobu nga xam ne moo amoon ca Shaam ca dëkk mu ñuy wax Amawaas ñoom ñëpp ci lañ gaañu. di ay saxaaba yonentu fekki ñaar vingt cinq mille wala trente mille personnes yoo xam ne ñëpp ay julli lañ kon mbas man na daal ku nekk. corona bi wane ne lool euh, nee naa yi daan épidémie yi daan am ci jamono yi da ngay dégg ñu ne ma nga lu mel ni Ebola mi ngi fii mi ngi dëkk sàngam mu dem ba jeex am dëkk Europe yoo xam ne amuñ benn cas ba ñoom ñu bëgg ko moomale sax Afrique xeex nañ ak moom jamono xeex nañ ak moom. technicien yeeg euh, docteurs yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci xeex nañ ba bërki démb rek bu minuit jotoon te gisuñ benn kaa lañ naan jeex na ci àddina waaye avant minuit di jot rek ñu gis benn kaa ci Congo ci lañ xam ne kon ba léegi mu ngi des te ay feeg yaa ngi koy dégg rek mu muccaguloo ñu continuer xeex booba waaye corona ngi fi des ba léegi di noon boo xam ne suñuy boroom xam-xam wax nañ ni lu ci li ñu tuddee. ay mesures barrières sanitaires ne euh, ku ci jàpp ah yàlla mën na laa musal ci feebar bi comme nag seen xam-xam moo ci màcc foog ñu nangul kenn ku nekk taxasusam maanaam matière gi nga xam ne moom domaine am la ni ñuy dégloo nit ci diina ndax domaine am la sportif bi ñu koy déglu ci sport ndax domaine am la loolu lañu war a dégloo médecin yi tim ci mbas mii nga xam ne ñoom seen domaine la ñu tegal ñu ay mesures barrières yoo xam ne télévision bu bi fekk ko fa euh, rajo boo déglu fekk ko fa nit ñi nga xam ne xam nañ leen ñi ay porte de voix fu ñu toog seen kàddu bu ñu waxee mu joti fu sori nit ñi koy fàttali waaye bokk na ci daal ngir fàttali waaye foo dem ci Sénégal rek euh, application boo ubbi télévision boo ubbi danga fekk ñi la koy wax waaye bokk na ci daal cet gi ñu fonk ko lool di raxasu ak saabu euh, mouchoir bi ngay jëfandikoo na doon benn yoon ak yeneen yoo xam ne suñu borom xam-xam yi wax nañu ko distance ci toogaay bi nga xam ne nañu sénégalais dañu dañu dañu bëggante loolu yàlla defal nañu ko jullit dafa war a bëggante waaye nag nekk nañ ci euh, natt boo xam ne laaju tàncaloo ñuy jël distance ci suñuy toogaay yi looloo tax nag ba gàmmu ren gii munuñ ko def nañ ko daan defee soppe yi toog di xoolante ndax loolu itam dafa am solo ci wàllu diina waaye mënuñ ko def waaye noonu ñu ko teree def kon noon bi ñu ko teree def mooy comme noon ba teree woon yónnent bi bañ ko embargoyee ca Màkka ñetti at mooy noon bi nga xam ne yónnent bi jugee na Madinatu Munawara ne damay dem umra ji ñëw ba jub Màkka ñi ne ko doo umra mu delluwaat Madinatu Munawara noon ba tere woon yónnent bi mu umra moo ñu tere ren ba fii jamono bii nit ñaa ngi bugg a umra mënuñoo dem noonu war bii nag noonu mu jamono bii nag corona la tudd nañ fàttali ne nattu la ndax wa ma nursilu bil ayaati illa taxwifa laaya yi duñ koy yónni lu dul rek mu mu ñuy alerte suñ demee ba nga xam ne fàtte nañu bëgg nañoo fàtte suñu borom saxiixul muslim da fay fekk benn xadiis amir ibnu saad moo ko solo ne benn góor dafa laaj Saad ibnu Abi Waqaas radiallahu anhu ci benn épidémie bu amoon bim ko laajee Usaama ibnu Zeyd moo ne moo tontu ne xaaral ma wax la li yónnent bi waxoon xaaral ma wax la ci dara yónnent bi nee na mbugal la wala muy sobe nattu bu yàlla wàcc ci ab sobe mbas mu yàlla wàcce ci ay xeet ci benn Israël wala ñeneen ñoo xam ne sax duñ bani Israël yoo xam ne jiitoon nañ leen ci ay xeet yàlla wàcce ko ci seen kaw su ngeen ko déggee nag mbas ne wàcc na cim réew mu ne bu leen fa dem gannaaw bu ngeen ko déggee su leen fa fekkee itim bu leen ko bu leen fa génn ni nga xam ne xadis bi passé waxoon na lool ñu ne kon loolu mooy li ñuy wax nga xam ne euh, médecine mujj na ko saxal mooy ñi nga xam ne dañoo amee mbas mi euh, nattu bi dal na leen ñu teg leen ci benn barab teg bi ñu leen teg ci benn barab mooy pour bu ñu wall ñeneen lañ ñu mën leen a euh, suivre seen i cas ba ba ñuy àndee agee agee ci wér. moo tax Ibnul Qayyim ci nga xam ne boroom xam-xamu diine yi la boroom xam-xam la bu mag taalifi téere yu bari laaj nañ ko bu mbas amee. muy épidémie nu ñuy def lu ñu charia sant mu ne tajannubul asbaabul mu'ziyati wal bu'du minha dañuy muslu sabab yi koy indi fexe ba sori ko mooy mesure barrière yi nga xam ne euh, dégg nañ ko léegi te itim euh, borom xam-xam yaa ngi continuer ak médecins yi dañu ko fàttali jamono bu nekk. mu ne euh, bu fekkee ne dafa contaminé barab yi nañ fexe ba bu ñu nokki barab yooyu nga xam ne euh, mbas mi daf koo wàll ca boobu jamono amuñ masque yi nga xam ne moo xew tey ci jamono waaye moom noonu na nañ ci sàkk pexe ba nga xam ne place yi nga xam ne yëf yi tasaaroo na fa ci ci ci ngelaw li ñu fexe ba buñ ko nokki amoon nañ xëy na seeni pexe lii may wax li may wax nii euh, ay euh, siècle la ci gannaaw waaye euh, utaloon nañ ko ay pexe waaye jamono yi ñu toll itim médecine moderne indi na ci ay pexe mooy masque yi nga xam ne am na ñetteel ba mu ne allaa yujaawiru l marda alladina qad maridu bi dalik mu ne ñi nga xam bi dal na leen bañ feebar bu ñu dëkk ak ñoom toogaaleeg ñoom mooy ñu yóbbu leen quarantaine euh, wala ñu ber leen ci ay barab euh, ñu toog fa fan yi nga xam ne ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi nee na nañ ko toog xam nga am na euh, feebar yoo xam ne dañ daan ber nit ñi ñeent fukki fan. feebar bi ñi ngi ber nit ñi yaakaar naa ne 14 jours maa ngi koy wax ci contrôle yi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu. mu ne nañ ber ñi nga xam ne ñoo am feebar bu ñu nekk ak ñoom ndax bañ a jël ci ñoom jox ko ñeneen itim euh, ñeenteeli tomb bi nga xam ne waxoon na ne ci euh, moom Ibnul Qayyim ne bu dalee na jullit ñi bàyyi xel loolu ñeenteeli point bi mooy lan mu ne nag yaakaar yàlla xam ne yitim nag ah bu ko neexee rek mu dindi ko fi léegi yàlla nañu ko dindil ndax bu ko neexee mu dindi ko fi nag. wa tawakkul alayhi paniqué itim ba daanaka sa jàmm yàlla sax dootu set daanaka euh, teg sa bopp feebar boo xam ne feebar bi tegu la ko loolu itim nee na du jar paniqué nag nañ jàpp sabab yi nañ désinfecté barab yi loolu la noonu la ko waxee woon nañu fexe ba ñi feebar duñ leen jaxasee ñi feebarut waaye nag nañu wóolu yàlla itim tey itim nañ muñu natt yi nga xam ne am na ci ndax euh, bu ñu ne dal na benn sénégalais benn sénégalais rek dafay mel ni dal na sénégalais yépp ndax euh, ñépp benn bopp la ne nañ duñ ko xaar ñaar natt boobu nag dañ koy daal di muñ fexe ba bu mu tasaaroo loolu boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wax nañ ñi nuñ ci jaar waaye bokk na ci li nga xam ne itim nit mën na ko sellu booy jàngat jàngati diina mooy ne seytaane itam def ci liggéey pour tàggale ñi ak suñuy kilifa nañ ko doon defee ci yonent bi sallallahu alayhi toujours bu épidémie amee occasion la pour seytaane tàggale njaboot bi loolu danaa dellu ci taarix tuuti door a ñëwaat xam nga yonent bi bi mu gisee ni dafa war a umra ji mu ànd ak saxaaba yi ñëw bay umra ji umra bi mu ñëwee dañ ne ko doo fi dugg umra moom doo ko fi defee a ah, te fekk wax na ko jullit ñi jullit ñi kontaan ba dee ni la ñuy dellu màkk umra ji bi ñuy ñëw kenn amut arme kenn indiwul dara ndax umra moo leen indi xeex si wuñ lañ fi daj màkk yëpp bi ñuy ñëw xeex indiwu leen ñu ñëw ba jub màkk gaa ñu neen du ngeen fi dugg ah yonent bi gis ne ñi kat li ñuy wax lu leen ñor la mu xalaat yónnee leen benn émissaire boo xam ne mooy wax ak ñoom. wax leen ne leen ñun xeex indiwu ñi dañoo ñëw rek umra si wër kaaba gi dellu yi yónnee Xaraas bun Umayya ba mu àggee Quraysh dañ ne kii nañ ko rey ndax mu xam yónnent bi xam ne ñun kafuñu du umra ren suñ ko reyalee kim ebal te ci diplomatie sax émissaires yi duñ leen laal ci arab yi seen aada noonu la woon mooy ne ki nga xam ne dafa ñëw ñi yebal ko moom duñ ko rey ñu ne kii nag buñ ko rayee yónneent bi dana xam ne ñun kafuñ du umra ren de après ñu ne ahbash yi nekkoon foofu waa xabashe yi nekkoon foofu ñoo ko aar ba rayuñ ko mu del si yónneent bi di xalaat yónni Omar pour mu dem continuer négociation bi Omar ne ko waa man day sangu bi loo wax ñu def ko waaye nag man deseetuma fa mbokk aw ma fa giir goo xam ne bu ma gaañi buggee rey ñoom danañ ma aar Ousmane nag mbokkam yaa nga fa ba léegi damay yaakaar ne ebal usmaan moo gën ci négociation ndax ay mbokkam am fa am na ñu ko rusal am na ñu ko ragalal Ousmane dal di jël mission boobu dem bam demee wax ñoom ne leen ñëwuñ pour xeex umra ñi indi si gaa ñi ne ko umra du fi am ren yow nag soo neexee su la neexee ñu ubbil la kaaba gi nga umra dellu xam nga li euh, Omar doon wax ne nañ ebal usmaan ndax am na fay mbokk te am na ñu ko rusal loolu feeñ na nañ ko yow mën ngaa umra euh, mu ne leen xalaatuma ko aaye yónent bi umra ne Ousmane kaay umra muy umra lu may defee umra gu yónent bi mënta def man kay demee dellu ci yónent bi ah xibaar ba siiw ne Ousmane umra na te yónent bi mënta umra Eh, julli di ñee ko ci lool moom jot naa umra moom di jot naa umra moom di jom jom naa umra ba mu delsi bi mu delsee ah gaa ñi ne ko eh, yónneent bi nag toujours bu ñu ne Ousmane umra na mu ne rafet leen njort ci jullit ñi Ousmane rafet njort ci jullit leen njort ci Ousmane. gannaaw gi beneen rumeur ñëwati ne non seulement umra wut waaye rey nañ ko faf ca la yónneent bi jaayante ne kon ku gëm yàlla ak yonentu ne ñëw ñu jaayante ne teg loxo bi ci loxoom moo njëkk a jaayanteeg boppam jaayanteeg yàlla ndax yadullahi fawqa aydihim euh, jullit ñëpp jaayanteeg moom ci dem defendre ji Ousmane bu fekkee ne rey nañ ko rey ña ko reyoon wala xeex ak ña ko reyoon gannaaw gi la xibaar bi wane ne li rumeur la woon wéerutoon jaayante googu nag moom la ñu tuddee bayatu ridwan gis nga li ma bëgg wax foofu mooy ne toujours ci crise seytaane itam day liggéey ci tàggale xet yi Ousmane dem na moo amoon négociation bi àgg na di négocier euh, ñu ne moom umra na te yonent bi umrawul ñeen ko ci ñee ñeen ko jëppi nu mu sañee li ay yonent bi mu di ko def xam nga xaw naa mën a tas mbooloom jullit mi bésub keroog bu taxutoo nag tey yónnent bi ak li muy jëlee xibaar ci yàlla ne leen tey leen ci te ngeen rafet njort beneen rumeur ñëwati na ne rey nañ Ousmane jullit ñi dañoo ñëwoon umra si indiwuñ armo buñ demee ne dañuy xeex itam seen xol rek lañ àndat waaye ànduñu ak doole juñ xeexee mooy ne ñëpp fa nañ des keroog buñ demoon xeex Iblis seytaane dafay liggéey ci loolu itam pour tàggale askan wi xibaar bi ñëw ñu ne Ousmane rayuñ ko ñu mujj toog jaayante boobu nag nee naa leen mooy bayaatu ridwaan ndax alquran na leen tagg di leen kañ ci laqad radiyallahu anil muminina iz yubayi'unaka taxta shajarati fa alima ma fi qulubihim ba laaya ja daano fa anzala sakinata alayhim wa athaabahum fathan qariba mubaayaa boobu wala jaayante boobu ñu defoon ak yonent bi moom la ñuy wax bayaatu ridwaan yonent euh, éefar yi Makka nag mujj yebale ñoom itim ku ñëw négocier si Suhayl ibnu Amr lañ yebal mu ñëw ne yonent bi dañu ñëw pour ñu bind benn pact soo kon nangoo ren moom doo umra loolu moom génnee ko ci sa xel mi nga dellu Madinatu Munawwara bu déwee ni ngeen ñëw umra si loolu lañ d'accord ah ñu ne nañ bind pacte bi pacte bi biñ ko bindee ñi ne waaye danañ toog fukki at yoo xam ne ñun itam danañ leen may fukki at yoo xam ne duñ leen songu xeex ñu leen bett noonu bu ngeen gis duwaa mag yonent bi d'accord bind pacte boobu seytaane liggéeyaat ci makk ci seen caay-caay ñoom itam yokk doos bi pour yonent bi mbooloo ma tas ñu ne pacte bi daal ku gëm yàlla ci yéen ànd ak yéen dañuy jàpp ne béy groupe yonent baa ngi nii ñi gëmut nekk màkk dañuy jàpp ne ñooy groupe Quraysh su ngeen laalee kenn ci ñun dafa mel ni laal ngeen ñëpp ñun itam bu ñu laalee kenn ci yéen dafa mel laal na ñëpp ñu ne d'accord yonent bi ne d'accord naa ci loolu. ñu ne su amee kenn ci yéen kutub bi masalan dellu màkk bëgg dellu si ci Quraysh da ngeen koy bàyyi mu ñëw yonent bi ne d'accord naa foofu jullit ñi seen xol yëngu na ñu ne ah déet jullit. bu toog ci ñun ba ci kam mu ne dafay dellu ci dafay bi dañ koy bàyyi mu dem yonent bi ne dafay dem ñu yokk dose bi ne su amee ci ñun ku bugg a ñëw ci jullit ñi masalan tuub si wala julli la ma nga woon foofa bugg a del si fekk si leen te jullit la kat bugg a ñëw fekk si jullit ñi duñ ko bàyyi mu ñëw yonent bi ne d'accord naa jullit ñi jug taxaw ne loolu nag kenn xamul lan mbir mi nag fi mu ne nii ñàkk fayda lay niiru xam nga am kilifa neexut Euh, waaye moo baax nag neexul waaye moo baax ndax kilifa gi dafay gis loo xam ne yow gisuloo ko mu jël responsabilité lim gis xëy na yow sa xel d'accord ci waaye da nga war a ànd ak moom bés sa xol moo tax foofu la jafe jafe bi nekk ñuy bind pacte bi dégg nga euh, euh, tomb yi nga xam ne moom la pacte bi ëmb jullit ñi d'accord nañ ci te yonent bi d'accord na pexe doom ñu ne bind leen pacte bi yonent bi ne Aliou bindal uktub bismillahi rahmaani rahim Suhayli tëgg taabal yi ne ko mënul nekk lu ci bismillahi rahmaani rahim doon ñun xamuñ rahmaan xamuñ rahim nga ñu koy nga koy dugal ci suñu pacte boo xam ne ñun ñaar ko war a signé dindi ko mu ne lu ñuy wax mu ne ko bismika allahumma ndax ñoom daan nañ loolu lañ daan wax. yonent bi ne Aliyu bindal uktub haza ma salaha alayhi muhammadun rasulullah ne lii la muhammad yonentu yàlla bi d'accord ak waa Quraysh mu ne ko muhammadun rasulullah nga wax de mu ne waaw mu ne ko rasulullah gi lu mu ci doon yonentu yàlla ñun d'accord uñ ne yonentu la problème bi ni ñun d'accord uñ ne yonentu yàlla nga dindi rasulullah gi xol yi yëngatuwaat julli ñu ne ni nag ñàkk la parce que gaa ñi lu ñu wax rek euh, kilifa gi ne d'accord ayca ayca ay ca lii nag ñàkk fayda la ñun duñ ko nangu Aliou bugg a jéngu waaye nag seenu jéngu ci kanam yonent bi du sori ndeysaan ndax bëggeel giñ ko bëgg ak xam gi ñu xam ne lu mu def ndigal la yonent bi ne ko boo ko bugg tafaas wan ma fu mu toll comme moom mënutoon a jàng ñu wan ko fu mu toll moom moo ko dindi rasulullah gi moom moo ko dindi ne uktub ñi des nag mooy léegi uktub muhammadun ibnu abdullah bindal mu ne ko euh, da ngay wax sa tuur rek teg ci sa teeru ba sa turu baay waaye ay rasulullah yooyu doo ko ci bind parce que ñun d'accord ci ñu bind Muhammad ibnu Abdallah continuer euh, rapport yi euh, bind pacte bi bam jeex lañ ca wax ñu ne man ataahum minna fa abadahu llah yonent bi nag ci la bégal julli ji ne ku jugee ci ku nekkoon ci ñun ba kam mu ne léegi damay dellu màkk ci kéefër na ngeen xam ne ko yàllaa ko soril kon kay buñ bañ mu dem boobu jullit ñi mën nañ ko dégg biñ mënta dégg kay mooy jullit bu nekk fële ne dafay ñëw léegi ci jullit ñi wala ku nekkoon fële bëggatu ñëw ci jullit ñi ñu ne déedéet ñu ne na toog màkk ci biir yéefar yi boobu la jullit ñi mënatoon a dégg iblis di ci liggéey seytaane di ci liggéey yónneent bi ne leen nag xamal leen lu ci xamutoon mooy ne wa man ataana minhum faradadnaahu jaala allahu lahu farajan wa maxrajan na ngeen xam ne képp ku ñëw ci ñun ñu ne ko dellul toog ba jëmmi jamono su demee yàlla dana ko wan fu mu jaar ba benn lor du ko dal dana delsi ci jàmm ak ci ñun xam nga kon kilifa gi mu ngi gis foo xam ne muy yónneent bi sallallahu alayhi wa sallam ca booba barab ma ngay gis foo xam ne mbooloo mi gisee wuñ fa moo tax li ñu foogoon ne ñàkk fayda la plus tard lay daal di leer ci ñoom bi ñu bindee beneen nattu feeñ avant ñuy bind pacte yi ba di ko signé Abu Jëndal ñëw jugee mag daw bëgg a fekk si julli ñi Suhayl li ne ko ah gis nga li ñu doon wax a ngi nii kii a ngi nii ñëw na ci yéen suñ pacte bi daf ne ku jugee mag bugg leen a fekk si da ngeen koy wax mu dellu yonent bi nee na dellu foofu nag julli nag am gàtt jafe-jafe nag ne lii kenn mësu koo xam ñëw làqatu suy ay suñ mbokkum julli ñëw ñu koy dellooji waaye yonent bi wax na leen la cay topp ne leen lum yàgg yàgg may daal lum yàgg yàgg yàlla dana leen wan fu ñu jaar ba génn ci jafe-jafe bi nga xam ne am nañ ko loolu mooy li am gannaaw gi ñu bokk bind ci pacte ba ne danañ am fukki at yoo xam ne duñu songu jullit ñi xeex du am seen diggante biir fukki at yooyu nag ci la. Euh, yonent bi tabax état islamique ci la am ay ambassadeur ñu wër àddina tasaare islaam ba mu daj fépp ci àddina bi. kilifa nee naa lu métti na waaye moo gën li ñu foogoon daf leen ko yombalal lu ñu wax mu ne waaw waaye mujj na at ma ca topp ñu ñëw umra si ndax loole doon pacte bi bi ñuy ñëw fekk na dèjà ñu tabax benn état islamique boo xam ne ndax ragalatuñu woon guerre ñu ngi tabax réew ma. ñi ñëw ak bii yoon nag ak seeni armo arme waa Màkka dañoo tiit ba dañoo daw génn Màkka dem ci kaw xeer yi làqatu ci fa ñetti fan lañ toog Màkka gisuñ kenn ku leen déranger ndax biir at miñ toog te xaaruñ guerre ci lañ tabax réew mu dëgër boo xam ne daj na àddina biir fukki at yi nag benn at bi ci lañ tabax ba dellusiwaat kenn ñemewu leen laal waaye biir fukki at yi ci lañ daj àddina yépp am seeni i ambassadeur ñu dem fu nekk Omar d' accord toon gis naa leen nee leen jullit ñi d' accord ñoon ci pacte bi parce que dañ ne dafa yomb ba ëpp lu gaa ñi wax rek yonent bi d' accord lu noon yi wax rek yonent bi d' accord comme ni muy amee ci suñ jamono bi euh, am nañ noon bu tudd corona euh, suñuy kilifa d'accord ci ne nañu arrêté dajaloo yi nga xam ne moom la ñu war a def liñ doon def te muy mbaax yëpp te muy ay farate yëpp nañ koy def ci suñu kër yi ndax gis nañ ne ci la jàmm askan wi yëpp nekk euh, xolu ñu bëri ci ñun mën na cee xelu ñu bëri ci ñun mën na cee ñàkk d'accord waaye xol yi lañuy bés te xam ne ñoo ñu gën a bëgg jumaa yi ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu gën a bëgg jumaa yi ndax am na ci ñoo xam ne ci ñoom ci jumaa daanaka dañ leen di boot dañ leen di yenu teg leen ci seeni oto ñu yóbbu leen ñu dem ak difficulté te bu ñuy raam dem sax danañ dem kooku nag xëree nooñu ci jumaa ji bu ne lañ ko defee ci kër gi rek xam na lu ñu xamut topp kilifa yombul waaye moo gën yonent bi pactam bi nga xam ne noonu la ko ko tegoon bi mu ko nangoo jullit ñi seen xol d'accordutoon ba dafa ñëw sax ci euh, soxnaam ne ko ah man de am naa jaaxle ñii jullit ñi ma leen di digal faalewuñ ma noona ko defoon noon bu ñuy gis noon bii nag di noon bu gën a garaawati ndax moom mën na laa wër nomba te du ko gis Omar ñëw ñëw na ci Aboubacar Omar ak gëm gim gëm yonent bi ak bëgg bi mu ko bëgg ñëw na ci Aboubacar Saddiq ne ko waaw mais lii li xew lan la yonent bi lii lu ñëw lu ñu wax rek mu mu d'accord sang bi lu ñu wax rek mu d'accord lii lan la. Aboubacar ne ko hee ayyuha rajulu innahu la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saa waay mu ne ah mu ne ko yàllaa ko yónni de walaysa yaasi rabbahu loolu la yónent bi doon wax yàllaa ma yónni de te duma moy suma ndigalu borom Aboubacar teg ci ne ko wa huwa naasiruhu yàlla mi ko digal nag na ngeen xam ne moo koy dimbale de lu mu yàgg yàgg mooy daan fastamsik bi garzihi langal Euh, xarsu mooy euh, boo waree fas ñu teg teg gi teg gi dafay ànd loo xam ne foo xam ne fa ngay def sa tànk mu pour di di ko dëgërloo foofay xarsu mu ne ko langal jàppal ca xarsu ba bu mu la fi bàyyi de maanaam li yónneent bi wax noon jafandul defar rek ni mu la ko santee fastamsik bi xarsihi fa wallahi innahu ala alxaq wallahi moo nekk ci dëgg nee naa leen xarsu mooy ndëgal woo nga xam ne fala la ci fas fa ngay teg sa tànk mu mel ni waxin la mooy ni ko langal bu la fi bàyyi lim wax ne nañ ko def nañ ko def ndax hadis bi li xam xamal xarsa euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay wax ne bu bu bu bu booy tukki boo tegee sa tànk fil xarsi iza wadaa rijlahu fil xarsi yuridu safara ñu ne ko ah mu ne na wax yaqulu bismillahi boo tegee ca tànk foofa rek ba war a yëg nga war gi rek mu ne na nga ah, bismillah kon foofu nga teg tànk bi mooy xars yonent bi nag Aboubacar nag ne Omar boo yeboo téyenu ci lim téye de bu mu la fi bàyyi lim jafandu jafandu ci rek ah ñu mujj fekk si yonent bi ci jafe-jafe sax nag am ñoo xam ne moom dañoo jëngu rek ne moom la sang daal mooy suñ kilifa waaye tey moom kilifa gi li mu wax ñu li ñàkk fayda gi ëpp na loxo ba dafa ñëw ci umu sulamata doomam euh, soxnaam ne ko jaaxle naa de mu ne ko ah jullit ñi maa leen di jox ordre ñi may euh, ñi koy sofantal mu ne ko yow rek lañ bëgg boo defee rek ñu def defal li nga leen li nga leen digal rek yónent bi loj gëlee moom euh, watu ñëpp fekk si ko ci loolu dégg nga kon nattu dafay ànd ak seytaane di ci liggéey pour tàggale ñu suñuy kilifa waaye dañuy nañ xoolaat xol yi rek xam ne ñoo ñu gën a xër ci lii ñi leen di oo buñ ne leen dañ julli ajjuma nañ dem dajaloo ji ci biir jumaa ji te ñoom ñu ne ñi euh, jullee leen ci kër yi dañuy xam ne ñoo ñu gën a xër ci jumaa ji ñoo ñu gën a ragal yàlla euh, suñu intérêt moo ci nekk. Euh, sulxul Xudaybiya bi bi may nettali loolu laa ci jublu ne bu nattu amee noon tere yonent bi ne ko doo umra ji mu bàyyi neexutoon jullit ñi. dañ ne woon ñàkk fayda la yombalal leen ko bu ëpp yëfi tooy lay niru yaram benn la foo dóor mu metti bu leen ko jaralee nañu ko jaral waaye rek yàlla ne leen yonent bi ne leen nañ nangu rek bañ nangoo gis nañ lam leen lan wax natt nag mel na ni ñu ngi jege si euh, jeexal jotaay bi euh, gannaaw bu ñu nangoo euh, règle yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko suñuy kilifa yi diina ànd ci ñu fekk kilifa yi seen bëgg-bëgg boobu duñ ci jële lu dul ndam nañ ci yokk nag liggéey yiñ daan liggéey di naafila di jaamu yàlla ñu yokk ko tuubal yàlla itam ndax danay ñëw ngir nattu muy mbas àddina ne benn village la bu ndaw lu xew ay woy dégg rek ñaanal ay woo fay ndax comme yaa ngi koy dégg muccaguloo waaye bi xasee yegg si ndax ba ñuy dégg euh, euh, fitna bi yàgg sori woon nañu lool tey mu ngi ci buntu kër yëpp boo xasee yegg si ci kër yëpp nag dafa am lu fay des mooy tadaamunul ijtimaa yi ndax nee naa choc la boo xam ne noon bi ñaari choc la ñu def bi ci jiitu wàllu wér gu yaram la deuxième choc bi dafay laal poos yi nag foofu nag la ñuy wax tadaamul ijtimaa yi mooy boolante doole yi dimbalante ku ci nekk ci anam ga mu mënee ñii ci seen poste lañ ne ñii dimbale nañ nit ñi ci wàllu dund ñii dundee leen ci wàllu santé ñii dimbale leen ci wàllu xam-xam ñii dimbale leen ci wàllu jumtukaay yi ñuy jëfandikoo pour mën a mucc ku ci nekk rek wàllu gam mënee na ko def lépp euh, kenn mënul lépp nag waaye kon ku nekk am na wàll goo mënee wàll googu moom ngay joxe ba mat sëkk alhamdulilah euh, Medina ngi ci def euh, laman man euh, ni ci àddina yëpp di defee ñi ngi am fond boo xam ne ci ndigalu sëriñ bi la sëriñ bi alxalifa Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass moo ko digale fond ba taxaw Cheikh Mahi Ali Cissé mooy ki nga xam ne moo nekk ca bopp kuréel gi ko doon coordonné mu euh, ba ba ba muy taxawee doon fondation euh, ñu dugal seen loxo ci euh, natt bi nga xam ne dal na ñëpp te bu ñëpp àggee ci caalit toujours day am ñoo xam ne nag ñooy gën a néew doole ba ñoom dañuy soxla ndimbal ñoo ñëpp nag alhamdulilah fond baa ngi ci sabablu yàlla na leen yàlla yokk tawfiq Euh, bàyyil ñi fi xalifa bi nga xam ne moo jiite lépp lépp ci ndigalam la euh, lépp ci ñaanam la lépp ci euh, barkeem la yàlla bàyyil ñi ko fi ay ati ati ati at mu dund ñun lu yàgg ci wérgu yaram ba nga xam ne fi mu bëgg a yeggalee peyu bi yàlla dana ko fa yóbbu fu ëpp foofu ah di gërëm nag techniciens yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi kam dañ nañuy dajaloo bi lañ koy moytu ñoom ñu fexe ba indi jumtukaay yoo xam ne mën nañ gàmmu online ah kenn du am seen euh, seen fay maa ngi ci jiital ki nga xam ne moo nekk ci suma wet nii di jël liggéey bi mooy al oustaz Omar Wagne waaye euh, duñu gërëm ñooñu te waxuñ ñi nga xam ne ñoo leen sant liggéey boobu euh, mi ngi ci moom Omar Wagne euh, al oustaz euh, al allaama Ibrahima Maar mooy ki nga xam ne mooy coordonné jotaay yi noppalu démb ba tey wax dëgg yàlla mi ngi may oo téléphone mook docteur Ousmane Thiam mi nga xam ne mooy secrétaire général. njëkk loolu président Ansaruddin bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamed Mounhamina moom jaral la ko déplacé ba ñëw ba ci kër gi pour wax ma ne. thème yi nii lay tëddee thème bi lañ bëgg nga waxtaanee moo tànn euh, thème bi euh, bu téléphoné woon mu doy bu yónnee woon itam mu doy waaye moo ñëwal boppam pour euh, jottali ñu ko dafa dafa xër rek. wax dëgg yàlla ak bëgg ansaaru din jëm ca kanam yàlla na ko yàlla may kàttan ak wéer ba nga xam ne fi mu bëgg a yeggalee ansaaru diin yàlla dana ko may mu yeggalee fu ko ëpp. waaye kenn mënul tudd kooku te doo tudd Cheikh Mouhamadul Amine ibrahim Niass mi nga xam ne moom la euh, sëriñ bi dénk liggéey ba nga xam ne moo nekk ci Dakar euh, euh, te moo xalaat lii ne gàmm gi nag mënuñoo dajale waaye nañ fexe ba. thème yi nañ ko traité nañ ko jox ñi ko ñi ci tànn euh, ñu ñu waxtaanee ko nga xam ne am nañ joti toog ci kër yi seetaan ñu toog ci kër yi euh, seetaan ko dundal guddi gi nañ ko daan dundalee toog ci suñuy caméra kanam télévision la rek di seetaan te suñuy kurus di di di ñaan euh, ba yàlla dindi mbas mi ba déwéen incha allah yàlla nañ ko yàlla may ñu mën a tasee fañ dañ tasee ca barabu Cheikha mariyam ba xadimatul Quran defee ko nañ ko naan defee borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi leen ci séntu ci guddi gi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen tawfiq Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla allaama al mufassir bi nga xam ne war nañuy jox waxtaan. ñaare dañ daan li ñu daan gënal sax mooy déglu ko ndax ñu for ci moom euh, dara lu ñu mën a yaatalee suñu jotaay bi waaye yàlla def na ñun ñoo njëkk a enregistré waaye incha allah danañ ko dàkk ci biir euh, jumtukaay yi nga xam ne euh, mutawaffira maanaam euh, jàppandi na pour euh, seetaan gàmmu gi euh, tey mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci seetaan bi ak ci déglu bi di ñaan jotaay bi yàlla bu mu doon suñ jotaay bu mujj liñ fi waxte muy njub yàlla ñu yàlla may dégg ak topp lu ci njumte yàlla ngeen ñu ko jégal te yàlla faral ñu suñuy bàkkaar teggil ñi natt bi nga xam ne moo waral mënuñoo dajee te daje dafa bokk ci suñuy ponk ponk diine ay jullit dañuy daje ay jullit dañuy gisante di xoolante di saafuwante loolu yëpp mënuñ ko def ci jamono bi ñu toll waaye yàlla nañu yàlla dindil mas mi bañ mën a delluwaat ci suñuy aadam mën a delluwaat ci suñu diina di ko appliquer comme niñ ko bëggee euh, su mbas amul su mbas amee nag ah situation boobu mu ñu obligé ñu doxalee nii mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan mbaa ngeen di ñuy déglu ñu ngi leen di dig beneen daje incha allah gàmm gi nga xam ne mooy ñëw déwén yàlla nañ ko mën a def fekk ñu toog buñ bokk ci ñuy waxtaan itam mën a toog di saafuwante di xoolante di déglu ñi nga xam ne ñooy def waxtaan ba seen mbokk Babacar Niang moo nekkoon fii ci studio bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa